service national de l'hygiène ci Touba ngir lancer opération ñeel xeex coronavirus bi nga xamante ni ñu ngi koy dérouler ci trois zones yu am solo bokk na ci Dakar bi nekk jamono ji épicentre coronavirus mais également Thiès fi nag ci Touba matériel bu am solo ak logistique bi nga xamante ni jéggi na dayoo ñu mën see nemmeeku ay pomp motorisées boole kook ay pompes manuelles ak itamit jumtukaay moom la ñu fas dugal ci gox bi ci barab yu nu jàpp nii mbooloo ma ngi fay tase barab yu ñu jàpp ni également ñi fay internet nga xamante jàngoro ji ak fépp daal fu nu jàpp ni mën naa am lorange bi ñu nag amal lancement bi si Touba kenn si kàngaamu service d'hygiène yor éducation à l'hygiène yorit seen communication Moustapha Kane dellu na si président Macky Sall fi mu teg set ak cal ak tamit investissement bu jéggi dayo bi mu def jagleel ko service national de l'hygiène probablement sant président de la république ci vraiment xalaat bi nga xam ne am na ko ngir gën a dooleel service d'hygiène ngir mu a delluwaat ci efficacité ci compétence ci engagement ak yëpp ndax gis nañ ne ñaari at yi saa su ne ci conseil des ministres yi mu doon fàttali ne nañu jàppale service d'hygiène jox leen ay moyens moyens yoo xam dañuy renforcer seen personnel jox leen équipement ay oto ak appareil yi nga xam ne moom la ñuy liggéey bi mu ko defee ba feer bi ñëw nag ban xam dëgg dëgg nag service d'hygiène rôle bi mu war a jël moom dafa génne 10 milliards fukki milliards yoo xam da wax ne fukki milliards yi bëgg ma mu jàdd fenn benn dërëm jàdd ci fenn lu dul ci service d'hygiène heureusement fekkoon na ne am nan fi plan stratégie bu am solo boo xam ne loolu lépp xalaatoon nañ ko bi ko ko présenté mu ne arabtu naa ko nangu naa ko daal di tàmbali ci saasa génnee 3 milliards et quelque génn jënd ci oto yi nga xam ne moom leen visité nga xam ne danañ ko yóbbu ci région yëpp région bu ne da nga am sa oto département bu ne da nga oto région yëpp dana am ay moyens ak i xam nañ liggéey bu am solo bi def compte tenu importance région bi nga xam ne Touba dafa nekk xam ne dafa bari lu ñuy siyaare ñuy màggal te yooyu yëpp di yu am solo yoo xam ne nii tax na ba ñoom ñëpp danañ jot ci lu gën a gaaw matériel boobu pour que liggéey bi vraiment ñu gën ko def ni ko bëggee yàlla suñu borom dimbali nu xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex contre euh, Covid bi ñu mën cee am ndam. ndawal te woon na fa si ndaje bu ni mel moom gis na ni lii de da koy fàttali taxawaay bu yàgg sax bu service di d'hygiène ma a am si askan wi dana gis na ni daal jàppandal la si commune bi nga xamante ni bokk na si ay compétence am mooy set gi si biir Touba. xam service d'hygiène bi ñu a ngi ñëw ñëpp daw ñii lu nekk pour tey service d'hygiène boobu la ñu la ñu gisaat mu taxaw mu gis euh, matériel bi fi indi tey ak euh, kilifa yu jóge Dakar directeur national yebal leen ñu ñëw fekk fii les capitaines Sarr et Sène respectivement régional ak de brigade de Touba nga xam ne véritablement service d'hygiène bi ñu xamoon ci jamono yooyu mu dellu siwaat ñun nag vraiment am na ci mbégte trop parce que Touba dafa nekk dëkk bu mag ci Sénégal dëkk bu am mbooloo ay nit di fi ñëw ay màggal ay ziar lu ne di fi xew ci mbooloo di fi donc bu seen vision xalaatee lu mel ni indi ko Touba loolu dañ ci am mbégte am ci vraiment satisfaction docteur Mbaye Ndiaye mi nekk centre de santé bu Kër Niang district bu Touba moom nag appréciation bu am solo la am si jëf junni mel ndax gis na ni daal seet mooy lépp te nag bu barab yi yembee jàngoro ji mën naa dellu ginnaaw deful lu dul jaajëfal président Macky Sall si taxawaay bi parce que service d'hygiène tey ak santé ñaari domaine la yoo xam ne ni kenn mënu leen xaajale santé mënut a dem bàyyi service d'hygiène kon service d'hygiène tey bu defee lii te lii jógee ca maanaam autorité suprême son excellence monsieur le président de la république kon ñi ngi koy gërëm di ko sant au non de la région médical de Diourbel ñi ngi koy gërëm di ko sant xam ne vraiment lii moom lu rëy la di ko santaat aussi ndaxte li mu def lancement bii xam ne ñi ngi koy démarrer tey ci Sénégal mu war a wër région yëpp mu commencé ci région de Diourbel plus précisément au niveau de la ville sainte muy Touba kon loolu encore dina montrer ban maanaam gëdd le président de la République am ngir quand dëkk bii di dëkk sëñ Touba kon ñu ngi koy gërëm di ko sant vraiment di remercier autorité locales yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi ne xam ne toujours ñoom itam ñi ngi suñu ginnaaw côté santé bàyyiwuñ ñu benn yoon waa surtout Covid bi mu commencé léegi. service de l'hygiène ñëwoon na fii ñaari weex si ginnaaw amaloon opération d'envergure bu am solo si mbooleem gox yu fasantikoo si biir Touba rawat na marché yi bi la yoon mooy deuxième bi doon lancement bu am solo tukkeeku si programme bu nu jagleel ñetti gox di dakaar Thiès ak Touba